Sunugal 24 wa rahmatullahi taala baatu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ah, ñuy ñaanal ki nga xam ne moo fi jógee muy sunu mag Pape Dia yàlla xaare ko aljana aljana fi daw si ah, damay nuyu nag sama famille yëpp sama yaay sama papa samay frère leemu ñi nga xamante ni ñun ñëpp bokk nañ ak ñun naqar bi di nuyu aussi soxnaam bu baax di ko wax ne mu gën a muñ mu yaata ñaan mu sëy pap sëy bu rafet moom ñu koy ñaanal yàlla mooy ko xool muñ euh, di nuyu euh, monsieur le ministre Matar Ba di ko sant si déplacement bi di ko ñaanal yàlla fay ko yiw bu mu déplacé di nuyu monsieur le ministre Amadou Youm collègue Pape Diallo bu wér moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla fay ko yiw di nuyu euh, monsieur le préfet Ndaw euh, di ko ñaanal moom it yàlla fay ko yiw di nuyu Fallou Silla monsieur le maire. ku ne xam nga ni mooy wëlëre Pape Lat ñu ngi koy ñaanal yàlla delloo ko yiw moom it président Alioune Sarr euh, yooyu ñu lay gërëm bu baax di gërëm moom Mohamed Ndao Tyson euh, di ko ñaanal moom yàlla delloo ko yiw président Mbaye Diouf jaar moom it wëlëre Pape Lat moom it yàlla na ko yàlla delloo yiw di nuyu Cheikh Issa Sall sama xarit la sama wëllëre la ah ñi nga xam ne ñoo bokk mbir mi ñuy yëngatu muy làmb ak euh, Ousmane Gueye Pape Sylla Pape Sylla moom kenn la si ñun kenn la si Pape Pape tuddee na ko doom boo xam am na treize ans kon loolu wëllëre la di nuyu Matar bi aussi sama goro la ki nga xamante ni Matar Ndour ki topp si man mooy soxnaam moom it depuis boobu ba léegi ñaxam énergie doole ñëpp mu ko ci def di ñëw sama mbokk mbër nga xam ñoom laa bokkal mbir mi yëngatu muy métier yàlla nattu bi suñu koy def démb yaxa dégg ni ñëw na fii ah Gris ñëw na Eumeu Sène ñëw na ah gi ñëw na tey Tapha Tine mu ngi nii sama ginnaaw tey ñëw na Modou Lo dégg naa ne mu ngi sow si Xaadim Gajaga Maam Balla kii di sama rakk di Bouba Seex mu fi ñoom Seex ñan ah wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi fi kon ñu ngi leen di sant bu baax ñoom bu ñu teewee rek tey mu ngi nii sama ginnaaw euh, kon suñu teewee rek ma ne teewal nañ bëri yëpp di sant aussi communicateur traditionnel yi du ma lim ñëpp nag mais damay jël kàddu gi teg ko si loxo Bécaye Mbaye mu wasaare ko si ñëpp jeune reporter yi yëpp. Euh, di gërëm population Mbour population Sénégal monde entier tey nag lii ma tënk sax yaakaaru moom dinaa ko wax parce que ko nekk xam ne douleur bi ma am euh, ki ma ñàkk ki jóge si man tey yaakaaru moom sax dinaa tenir tey pour wax si moom wax si moom répétition la rek ndax sa papa mu ngi dund mais tey ñu bëri xamuñu ko Pape Diallo lañ ni mooy sama papa te dañoo xam ni képp koo xam ni seen taawu kër mu ngi dund joxoo ko cër nga ni bu sa papa doon dund naa ko jox cër doo ko jox cër ah Pape nag mm, li ma siy wax ginnaaw bi ñu dund man ak moom daf ma yàq te ay nit bokk nañ ndey ak baay te déggoowuñu mais moom dañoo bokk ndey ak baay man ma nekk ñetteelu rakam yàlla def ñu bokk benn kër ba nga xamante ni tey lépp loo xamante ni ñu ngi wax si man ni ko lay communiquer comportement am yaram yëpp Pape Dia mooy sama idole si moom laa nag perte bu mag vide bu mag laa am mais dinaa def rek ay quelques témoignages si moom euh, Pape damay xool ay mbiram ba mu yàgg ma ni missionnaire la man après si laay soog a soo ko rendre compte ni mënu gudd fan parce que euh, ku ku mu nuyu rek dalay tax si xol dalay akolaat man defoon naa ni sax quartier bi la ko la ko yemale mais monde bi yëpp ko wax mooy le Pape bu ma nuyu mu njëkk rek mooy xëcc akolaat na tax respecté na te loolu defe naa baax la ma indi ay leeral nag Pape yàlla dafa def loo xamante ni xaj na am na ñu ko xam am na ñu ko xamul mais deux mois yi ma génn dama dund tristesse dund loo xamante ni yaakaaratuma sama àdduna mën naa ko dund muy naqar ma wooyee ko lu mat ay deux trois mois Pape dafa tawat ñu yóbbu ko Tafane mu nekk fa feebar bi gën di avancé bala feebar sax di leeral si ñaari mbir. Euh, Pape même gëm la demandé gëm gëm bu wër te nit bu nekkatul booy wax si moom na doon lu dëkk ah bi ko tey bi daanalee ñu dem Fann feebar di reculé wul ñu évacué ko yóbbu ko France dinaa leeral loo xam ne tey mën naa am doon ma ko waxati te archive lay doon dinañ ko téye ñu demee dañ koy defal bilan defal avant médecin bi woo ma ma ñëw mu ne ma kii mënatul dund vingt cinq jours billaay laa jib imagine tey te si gën a mooy paat mi nga xamante ni moom lañ ko wax xamu ko te ñu wax ma ko te man liñ wax gëm naa ko ma war a dund ak moom vingt cinq jours yoo xam ne naa ni kii daf may lan moo gën a métti loolu hmm? euh, bi mu nee loo xamante ni euh, loolu ni Pape Djibril la jullit ak xam waaw dem na ba tëdd si lopitaan mënatul jigi mënatul jóg toog maa koy may ndox muy jàpp tëdd si kaw la lopitaan di julli billaahi wallaahi tallaahi Thank Bombardier nag foofu la xool li mu wax nii dëgg yàlla nekk na nag loo xam ne tey dañuy jox ci lu ko. bàyyi ko bàyyi ko Sunugal24 point net